l'ambition est le moteur de la vie man mënu ma kenn nekk candidat mais man j'ai été désigné par la coalition Yewwi Askan Wi. ah mais xam nga désignation bi li ma ci jaaxal mooy yow yaa ko njëkk a annoncé après ñoom ñu doog a génne communiqué bi. bon Pape dinaa la def benn confidence. ok Khalifa Sall moo woo téléphone mu ne ma Barth yow yaay nekk candidat présidence assemblée nationale ma ne ko comment ça mu ne ma parce que tu es le xam nga Pape man dafa am. mais boobu boobu fekkoon na ñu wax ni par exemple pour euh, ci biir Yewwi Askan Wi. Euh, conférence des leaders kenn moo ci nekk candidat c'est-à-dire ñi nga xam ni ay militants simple lañ comme yow duñ ci nekk candidat non non xam nga Pape euh, su ma neexee suba ma dem créer benn mouvement taxaw ne leader la ah bokk nga ci conférence des leaders leader comme Ahmed dara Pape euh, man soxluwuma ñit ne ma may kan xeebuma nag kenn Sénégal xeebuma kenn Sénégal je respecte tout le monde wante tu retiendras une chose je suis un leader né et en toute humilité Ahmed Aïdara su ma rakk la te su ma xarit la wante su ma nekkoon place am lu mu def du ma ko def wante nag je ne blâme pas parce que je considère que Ahmed n'a pas la culture politique que nous avons nous avons fait des jeunesses politiques nous avons fréquenté des bureaux politiques nous avons fréquenté des comités euh, centrales etc Ahmed euh, dafa ànd tamit ak ay nit c'est tout à fait normal peut-être ay nit ne ko pourquoi pas toi mais moom Ahmed xam na fu may waxee ba may dem Paris yëg na suma oto ñu dem ba aéroport ma waxtaan ak Ahmed ma expliqué ko lu tax nogul nekk candidat pour présidence assemblée nationale ma jox kay ay argument expliqué ko ñu ñëw ñu ñëw ci post vice présidence yi mais explique ko lu tax ce serait très difficile de défendre sa candidature pour un poste de vice président parce que quatre rek lañ ci am te partis yi nga xam ne dañu am ay envergure nationale ils vont prétendre à ces postes moo mooy PASTEF mooy PUR mooy PDS wàllu ak euh, taxawu comme man yàlla mës ma baaxee ma def assemblée douzième législature ma expliqué ko lan mooy président de groupe parlementaire lan mooy vice président de groupe parlementaire lan mooy président de de de commission ak lan mooy vice président lan mooy secrétaire élu donc je lui ai des pistes mais il s'est entêté ne moom dafa bëgg nekk candidat présidence ma ne ko ah, d' accord bisimilah da la yàlla jàppale. d' accord mais en amont est ce que amul fu yow yi décidé woon que ni une fois à l' assemblée nationale kenn ci leader yi mooy nekk président assemblée nationale. non on m'a désigné Barthélémy Diaz comme étant le candidat de Yewwi Askan Wi et ça Ahmed Aïdara était au courant te on le doit annoncer dans la conférence des leaders. ah non man li ma jaaxal mooy yow yaa ko annoncé. non non non yow yaa ko njëkk annoncé bien avant que communiqué bi génn ci jour J. communiqué bi waaw communiqué bi muy génn. Mhm. man xamoon naa que communiqué bi day génn. le communiqué est sorti tardivement c'était pour mettre Ahmed à l'aise mais loolu amul solo parce que bon xam nga Pape xam nga lu tax ma amul solo parce que man mënuma mere Ahmed parce que politique du diine politique du diine quoi je veux dire xam nga nga nekk jullit. ñu ne la alxuraan daf la tënk ci lii wala nga nekk catholique ñu ne la bible bi daf la tënk ci lii nga déggee ko noonu mais politique c'est c'est un choc d'ambition mais pour man su ma naroon tey critiquer Ahmed Aïdara du ma am argument parce que je n'ai pas d'argument pour le PDS parce que PDS dañu nekk ci intercoalition logique pour logique ñoom ñu am vingt-quatre députés ñu ñu am cinquante-six députés waaw est-ce que xalaat nga yow que waa PDS noonu lañu am sax sañ-sañ ñoom dañuy nekk euh, candidat pour intercoalition mais non normalement mais ñoom ils sont sur des principes et nous on considérait que vu la gravité de l'heure principe taxawu fi parce que foog ñu jàkkaarloo ak Macky Sall wante man Barthélémy Diaz vu ma trajectoire fu ma jaar ci PS je suis mal placé pour dire au PDS narul am candidat wante logique pour logique man de su ma nekkoon place su PDS te mu woor ma ne que tey le Sénégal souffre de Macky Sall man ma man ma jàppale ñu ma ëppale ay député ànd ak ñoom mais loolu su ma gis-gis la. d'accord alors laaj naa la léegi lu jëm ci amnistie Karim Wade ak Khalifa